dal leen jàmm seen boutique Lodeco Lodeco nekk une boutique boo xamante c'est la meilleure sur toute la capitale sénégalaise xoolal ma rideau yi façon couleur bu n'êtes am na fi lii Lo Lodeco rek la Lo Deco, am prix en gros waaye itam am na détail capital fii mooy capital Da de ko capital ku ci sisu da de ko capital su kombine selo ñëpp dañuy laajte na ñu dara fépp la ñuy wàcce ñun dañu nice ak vibes tegal fi sa loxo fi mooy capital eh. stresswelu mu tar tar seytaane abal ñu xajoo fi suñu biir yow abal ñu ñu fa laale di dem yow abal ñu entrez. waaw. Ndiémé. noo def. yaa ngi si jàmm. alhamdulilah. waaw alhamdulilah. naka ñu ngi nii rek. gis nga kër gaa ngi noonu ni ma la ko waxee woon. Mhm. waaw kër gi moom calme amul dugg amul génn. waaw te ñun ñëpp benn lañ. góor ñooy jigéen ñi jigéen ñooy góor ñi. waaw yow daal kër gi dafa ko comme moo ngi noonu daal. moo tax ma kontaan sax. Mhm. parce que fii moom. Mhm. xam nga boobu ba tey maa ngi wër. mais fii liñ ma fi wax moo tax euh, ma kontaan vraiment pour ñëw. te xam nga jëkkër moom. boo leen bëggantee dafa garaaw. dëgg la donc da koy soutenir ci yu bëri. te bi mu demee comme que yàggul. Mhm. dafay daa xaw a tar. Mhm. Euh, ñu recommandé ma kër gi. vraiment kontaan naa ci lool. macha ma yow dañoo yàgg. Ah, dañoo yàgg yow sama jarbaat nga li ma la rek nit kenn ku ne war na xam valise bi xëj ci rondalam. dëgg la naka koor gi nag. ñu ngi ci kawam nii rek. ah safagul de. déedéet instant moom safagul. <laughs> waaw sama daa ngi dañoo ñemee koor nag. gisoo ni ma tuutee waaw yooyu saf na. ah eh kaay foo jëm ñëw egg Taas ndeysaan dañoo gëj a ah xamante ngeen. waaw xamante nañ depuis daaw. ñoom ñoo ma doon dóor moo jëkkëram. yow lan la nga def ba ñu la. ah dara xam ne oo ma mag rek. may dóor rek. yow duma sa mag man. yow di ko doon magam asaru na. muy as nettal xuloo xuloo lay indi. yow nuyoo la njéeme moo gën nga bàyyi ngay nettali nii. mooy suñu dëkkandoo bees bi. léegi daal kon ci kër gi la rek. waaw. yow kër gi man lan laa fi fóode. yaay dugal yaay génne. dugal nga koo xam ne nag bàmbara la dañoo bëri xeex bari histoire te xaran moo ci toog ñun moom noppi na noo nelaw ci àdduna na jël boppam def ko comme ñun néegu xale jigéen nay dugg suñu néeg néegam foo ko neex na toog tëb nga sama néeg de luy loolu sama néeg boobu kër gi yëpp laa ko wax de ah boo nee néegam néegu xale jigéen yi sa néeg kay ba tëb sama néeg mu da ngay gore du dem toog na toog ñoom kooku ak ñoom ak euh, Fabio ñuy waxaat waxtaan sottante xalaat. loolu bu ko defee moom mii ñàkk fayda yow yooyu yokk ay kaala moom moo xale jigéen ñoo nduróole lu muy def foofu. lu si ne. maanaam sama néeg occupé wul yaatu na af na tantuwul te persu Adama Ndiaye baa nga fa tegee. man waxam yi comprendre ma ko ay perche ak nduróole mooy la ñu boo ko xamee nga wax moo ko. yow kañ nga commencé liggéey ci son. looy ray perse. liggéeyuma ci son de Adama jay mooy liggéey ci son. xool tontu Fodé man da papa As sax la koy wax ndax As la don wax. ndax jàmm la bëgg. moo gën surtout nak ñoo dëkk léegi. moo gën dañ nekk ci jàmm. yow kenn nga Wah, ngeen may dóor ñaari ngeen won. kon du jàmm nga bëgg. waaw. may ma xaalis. waa <laughs> kii tembare na de. jéem a yow yeggal sa néeg. maa ngi dem dinaa ko jox waaw ko si mais eh, yow doo nekk nit kii jabaru jàmbur la. mais gis nga ko am na ay aas yu na ne weeru nga ne. Hmm? yoo xam ne bàkkaar dafa gaaw te dafa sew. non garaawul loolu problème. sama jarbaat day ñëw ci kër gi wax na ma daf ñuy gane si. da lay gane ah, bokk waaye ci kër gi. non man léegi baal ma gérer sama néeg kuul kuwa man kër gi sama yoon bañati cee nekk seen waañ jël leen seen duus jël leen sama yoon nekkatu ci kuwa man sama néeg doy na. yow pourtant ki nga waayool man waxuma ci de rakk Marie-Louise bii te ñaar ay xarit ngeen. xale bii ragal naa ko moo gën a tàng mag gi. Ah, baax na man de damaa si moom torop sax man. ah dëkk bi de dëgër na suba ba léegi xëy amuloo kaa téeméer bi am dugg si but bi jënd si lu am solo. salaamaaleykum alekum salaam daam hmm. ça va yaa ngi si jàmm nga jaay ma kaaw ngénte mariage ku ñu fase loo ma jaay baax na amul anytime amul meer bu ñu fi jiñ dëm loo ma jaay baax na ku ñu fi fase démb si guddi nag amul saat bi ñu fi jàppaar ki dem daam yow tamit nga jaay ma kaa boo ma jaay bëgg naa yow bon nga de da ngay jaay wala jaayo yow ko yaa bopp yow mi di lacc ay kuñ bi fase kuñ di laajte seen mooy yooyu noonu. chee te lañ naan deret du juum kii moo gën a garaawu Evaka moom chee te te kii moo nar bi de ma koy toj ma de. xam Alam Baro kuy fenn bañ. man sama bi ko yow koy lii la jàpp ngay tuuti rek. dëgg neexul xale teint naturel baa ngi nii zéro kento gis ngeen ñun xuloo xuloowuñ xeexuñu diw bébé la ñuy use <laughs> waaye tamit mam njaay savon yóbbu nga fitu xale yi ñi ñuul seen fit dem na ñi xees seen fit dem na heure boo fëggee sa dënn sa caq yëngu doo ci yam da nga yëngalaale réew mi lii war nañ cee wax de moom nga ñu daal yee belli maam Ndiaye Savon. yow maam Ndiaye jàpp la. ñëwee. ci loo nekk ma chérie. ça va ça va si jàmm. maa ngi si jàmm ci loo nekk. maa ngi dugg si dégg la ngay maam Ndiaye Savon. yow maam Ndiaye ci boppam moo yóbbu fitu ñu xees ñi ñu ñuul ñi dëgg la de moom na réew mi de. bëgg nag. en tout cas day dindi stress moom. billaay wallaay dëgg la de ci loo nekk. maa ngi nii rek maa ngi nii. maa dal nga ak jàmm. waaw alhamdulilah fii moom. nickel fii neex na moom. waaw waaw. Ah, ñoom dama leen di comprendre. ñu sikk de. <laughs> <laughs> kon ah alhamdulilah <laughs> mais vraiment kontaan naa ko ko. donc bi ma ñëwee léegi xam nga ne yàggul mais comme que dama xaw di jàpp parfois moo tax tey ma ne occasion la ma ñëw Euh, waxaat la vraiment kontaan naa ziyaaraat la bu baax a baax waaye aussi wax la àdduna amul solo ndax xoola rek depuis très longtemps ñi ngi rombante ci koñ bi moo ne ma naa toog sama rukk rekk mm. affaire kaa yi moom naa ko daw bu ma ah. dugal ci benn kaa. <laughs> li ko arrangé la wax yow tamit dangay def li la arrangé fii ñoo fi nekk. <laughs> はいわやばいわまだちょこたんどもこらがだめにこんなもこさんてでのにめよばいもにれまとくさもねこんたんな de toute façon dinañ nekk tout temps ensemble di waxtaan bu baax baax dégg nga waaw ñu sekk jàmm insha en tout cas sa robe moom waaw nice maa ngi ñëw def doo toog maa ngi ci biir tëdd dal tuuti waaw man de maa ngi ci snap bi rek wa noonu la waa kay ok merci Ooh.

<laughs> Ndiaye. noo de. si loo de. ah waaye yow bi nga may woo kon kon yaa ci yoon bi. waaw dama xam nga dama doon do dama laa teel woo pour prévenir la a ah wax nga xam ne ma bàyyi ci fóotkat bi rek doon dem nii sax. ah yaa ngi si jaww. naka coono yi. ñu ngi nii rek ah, nekk ci kaw ah léegi xale bu góor nga de. <laughs> yaay. rek. tàng xol surtout ak weeru koor nii ak bu xiifee. dafa gën a tàng baax na ñëw gane si ma ah. man koor gi. yaay sama ndijaay. la yow la am yaay sama ndijaay. ah lii nga def baax na yaay sama xarit macha allah. la naka université. mu ngi foofu rek di di di metti di metti waaw metti ah, da ngeen di da ngeen di bàyyi kii bi nag grève beeg yooyu léeg-léeg ma ah. seetaan leen ci télé bi. mais ñun suñu bourse la ñu am. Uh-huh. buñ ñu fayal suñu bourse kay eh, dañuy grève. ah waaw loolu dëgg la mais loo xamante ci ngay lekk ci ngay naan kay buñ la fayal négocier rek. salaamaaleykum. waaleykum salaam. ay Bachir ñëwal toog ah toogal ne. naka mu. Eh. sama dama doon génne dajeeg sama jarbar. bi bashir moom laa doon wax léegi ci suba naan dafa ñëw pour gane suñu ci weeru koor gi. Bachir yaa ngi si jàmm di jaay. Dingaraay la jógee mais mu ngi fi université Dakar fii lay ya. jàngee. di kay Dingaraay hmm. iya la jógee. yow la de. jox ma 300000 ma jox la ko. bari. ba iPhone la de. non mais loolu dafa bari booy téyel ni ma wan la loolu moom du prix xale. léegi ñaar ngay fay. defal 30000. léegi pour wax wax ci bañ a gudd nañ ko def prix pharmacie yéegal ñu def fan laa jëm yéegaatal rek euh, dinaa la jox euh, cinquante cinq mille jeex na déggoo nañ déggoo nañ xaw ma génne la kees bi tey nar naa toj dëkk bi maay booy ok tey nee naa la doo toj dëkk bi sax quarante cinq quarante cinq booy a bëgg xaalis <laughs> mais per xaalis dafa neex euh, gisoo waa ji wéy na ko quarante huit mille waaw ani ñaar rek muy muy cinquante ani per per wóolu naa la jarul ñuy compter sax. la kon baax na wóolu naa la ñaan xoolal. waaw lii teewaat lii. waaw yi nii pour nga jëndee ko meew. kii moom la waay. yow moom la ci lan. sàcc baa ngi ni wëyu baa ngi ni bandi baa ngi ni vagabond bi. eh xoolal réglé la as nga bàyyi yi ngay def. waaw doucement bi mu waxaat sàcc de. ah grand nga may mujj wax. yow kii déglu as kii sama jarbaat la nga nga koy accuser. yow xam nga kon da ngaa doon sàcc bu nëbbu yow. comme sa jarbaar la ba yaa ngi koy jàppale tànk sàcc bu nëbbu nga yaa ngi fàttaliku jour bi ma fi ñëwee fii toog jaay ma saab bi defoon ko ci téléphone bi waaw maa ngi fàttaliku loolu moom mii moo ma ko jaayoon yow bàyyil tooñ yow kii sama jarbaat la man la moo ngi fi université Dakar di jàng doo ma ko ñaanal nga naan ay nga koy accusé xoolal xam nga doon sa jarbaat ak doon étudiant ak université lay jànge terewul mu doon sàcc moom mii as as déjà wax bu waxaat sàcc man tooñ man boo ma bëggee perturbé ay kaan na la sàppe ah. na nga sa kanam gi nga mel ni nenu baxal ni yow sàcc nga. yow as kañ ngay changé yow. xamoon naa ne daañu daje xamoon naa ne daañu daje daagun daagun sigi daagun sigi daagun daagun daagun daagun sigi daagun sigi daagun daagun. bu yàggee di nga dof de yow. dof man boo de boo ma tegee dof maa ngi wut reen yu ma mi ci loolu ma ngi nii yaa ngi oh, am jàmm bax yow da ya ngi ni rek ci li nga tek sen sen nga le ma xam nga lol merci beaucoup ojo capital de la don doxantou ci hmm. set sama lapin sa lapin ngay seti ni ngi koy seti ne na torop merci waaye kaa ma jaay la ka kaa déedéet kaay yow tamit dama jaay la rek ma lay jaay ma lay jox xaalis mu mujjee na danse li waaw sa lapin ngay seti waaw ñu ci buntu hôpital bi mi ngi sol bolo gu ngande nak lu mi def fofu tegle souvenement yu bari xalé jigéen ngi simi bolé bo tegal ko nalé diko ray ñi di diw tanki ya mom da mi ngi debbu fu ba mu ru mbax yow yaa gis ñal bu sedd guuy da fa tek nan na ci sax dawal yow yaa fekkee lo dama lijjanti lool bala mi turu ta dañ ko nangu sa loxo de dawal gaaw wa léegi nan laa def jàng daw dem bo dem ma daw lijjanti ji yaa ngi yag de dawal dawal bul dox dawal ñaw ay way ma la laa ak iblis ma ngay dem de na dem ko noonu la ko bi daa war a am ay cas di yëngu yow sàcc bu nga kon yow yu sew sewaan yu ah. réer ci kër gi yëpp ah. yaa ko sàcc bu la wax la sama nijaay rek de saaga nday gujj yéen ñaar ñëpp seeni amini gujj kaw sellaani kay an hoorema heewani hoorema neete ko sellaani ma toj sa gat kan moo sellul nee na wéro ah wéruma waaw ah commencé ngeen yow gis nit déclaré foo xam bu ma jéem a waaxu de moom du ma def li may def ma ñëw wan la ko fii xoolal tooñ baaxul loolu nga xam maa ngi ku baax mais du moom bàyyi leen tuumaal nit. kii koor nijaay koor gi wax jàpp. yow jaay saabu defe naa est-ce que jaayoo ma ko cinquante cinq mille benn saabu cinquante cinq mille. ah su la jaayoon saabu di ko wëri. ah dinaa ko wëri leen ak seen taat yu xoolu taata mu gën a suufee ngeen mel ni ay bërigo ndox nii. maay booy yow la wër na yàlla yow la. engi engi engi engi wiliwala engi engi engi engi engi wiliwala ak nopp yu guddee nag nga xam ku jir comme jiitu ciy jàng doo dégg mu naan ni wiliwala yàlla jaboot te mën a muñ ah eh, Eva. Kilo, loone lambar lambar rek yaa ngi si jàmm yaa ngi cool yaa ngi cool ah sen sañse nga de eh sen na ah sa marinière baax ah man pour man ana ngoola sa ah rafet na trop macha allah merci waay yaa toog nii maa toog nii xam nga man rek samay mbir sama affaire sen yooyu day def effet effet ah. wax leen effet e, effet waaw waaw wax leen effet eh effet waaw waaw ñu continuer bàyyi naa ko mulu mulu sax papa as ala sa lapin bi lapin ñi ma tecc ci kaaf gi bobo la bobu sa gelu lapin bi biju biju gisuma ko eh biju de mom la dajé gum ci bop bi ci wéru koor bi ngi ala ñett xalé goor lam sol nak mi bona bona bona bona bona bon ba nga ne ma li lan la hmm lolu baxul sax ak bëcc wéru koor bi ah mais da nga waran dem seen kër nga ko papa ak yaayam xam nyom ñom ya yaq yow mi nak man bisu doxanante wuñ de eh. mom moma nopp mais man nobuma ko buma indel ay fitna yow ansa sa papa. sama papa mi ngi Égypte. an yaay. sama yaay mi ngi Irak. Marie-Louise moom defe naa. mi ngi Gambie mi ngi Gambie mm-hmm. yow nga des Sénégal. waaw maa gaaw Sénégal. waaw ngeen di ruutalee ka raataloo. waaw gis nga. Hmm? xam nga lu ma bëgg. Mm-hmm. ngeen delloo si seen xel ci yàlla. ngeen bàyyi ay fen. waa ñun fenn ñu nag dañuy kaa. Euh, bul jàpp ni yàlla déggul français. non déggul côté boobu moom kaa ñun kaa la wax. yàlla làkk boo làkk dégg na ko ngay wëlbati ay fen def ko ko wax ci français. gis nga moytu len loolu. papa as ñu ni def aayul di. di ngeen fen ba fenal seen bop loolu ni mom aayul papa as. ah moytu len loolu loolu baxul mbiri jambur seen yon newu ci. bàyyi len di denc seen ëy bi di wàññi ëy bi jàmbur yi. naa ci bàyyi voilà. dañ bi. Hmm. sama rak bu am 8 mois yeeng nga li defati fe ci manifestation bu kafrin ha ah ma nga fa woon. ma nga fa woon yeeng nga manifestation bu yeeng naa ko. sama rak bi day yow mo jité manifestation. waaw si kanam la taxaw. policier bi dóor ko gën mu teg ko dënn rek kàjji ko mu dem. sa rakk bee def loolu. waaw yow def lu ko euh, boobu man maa ngi fa woon manifestation bi fekkee nga ko. maa ngi ci ginnaaw policier bi ko sànni grenade bi. waaw mu tulli ko si oto Zémi bi. xam nga ki ko sànni ñaata weer la ah. trois mois. laay laa looy mu koy sànni sa rakk bi maa ngi koy gis trois mois la am. yow kay kon fekkee nga ko. fekkee naa ko. xool suñu rakk bi am ko mois ñu nit li mu def. lu mu defaat. dem di fooy benn mu yem ci garabu guy bu doon daanu. nii la ko def. eh. na xale yi ñibbi leen. guy gi la téye wala buy bi. guy gi waxuma guy bi de. guy gi ah, garab gi si boppam waaw waaw la ne nii zëg na xale yi ñibbi leen. xale yi ñibbi xale yi tasaaroo. ndeysaan. lan suñu rek. seen waa kër a yooyu la ñuy def ak yeneen nag. ak ndeysaan. nettali naa la bi may fa beere. mosuma koo yëg. yow Papa man man heure bi war moon fekk fi ma toog di waxtaan ak yow. comme na waroon fekk man dee woon naa bu yàgg. boo dee woon ku tooy dina dee. ay mbiru yàlla rek. boo dee woon teint noir bu mool fa beere laa la wax nekk huitième étage waaw sëgg di fobeere man daal maa jékki-jékki rek tarxiis karo yi dañuy ritax bal billaay jàllee ko ca balcon ba waaw ni tëpp ci suuf ci ay karo nag laa la bu nekkoon suuf sax day tane nga daanu yow ci kaw daanu ma damaa taxaw su ma daanu woon day metti kañ fan nga jógee huitième toog nii di wax ak man nii euh, kooku buñ ko tegoon ci yoon sa cër yi ñoo war a duggante da ngaa war a daaju duggantewul nag sens boobu laa am chance boobu nga am man fa ma taxawee def nii waa koñ bi di laam-laami kii damm a wala dee na nga jóg yéeg ma jóg taxaw ni ñu xool ma ma xool leen ma fa xasu ba set waaw yéeg eggali fa bere bi li ci des yàlla ci yàlla wasal barke yow toogal daa am lu des daa am lu des waxtaan ba si kan bi yow waxtaan ak yow day foor ci man loolu day ëpp ci man eh bul dem yow tamit toogal wala faawu ma dem yow koy xamal ma lay wax heure bi des na toogal ba si kanam yow it xam nga damay damay dem dogi bul dog heure bi jalagu dama yow ya lii nga fi wax yow woor wàcc na la te man mi la déglu war naa mën dog ba subaa jàmm umaat kon nag maa gëmul ni yaay daay da yow wuy wuy yaay aw ci buntu kër gi nii laa jaar waaye da ngay dem damay damay dem powi damay powi ma ñëw toog awa tooguma waay i aw sax o papaas waaw ngay dem bi yow ay dem ba beneen yoon yowee booy seeti kër ba dem la papa capital Fii mai capital